gars yi Jude Bellingham dina teew ci cérémonie ballon d'or bi moom la ñuy jox golden boy bi waaye ak leneen yamaatuñu foofu Lionel Messi moom mii di jël ballon d'or bi moom nag ak ñi muy toogal ak ñi yi nekk ci wet géeg lépp nañ leen ko indi salaamaaleykum amateur de foot yi ñu nañ leen ko ci nekk seen tur seen sant tey jii la ñuy joxe ballon d'or bi remise ballon d'or lu nar a neex nar a yëngu Lionel Messi moom annoncé woon naa leen y a deux semaines que ni moom la ñuy jox ballon d'or bi c'est fuité c'est déjà officiel may laaj ci commentaire nag ànd ngeen ci ou pas waaye yamaatuñ foofu balaa maa ñëw ci Jude Golden Boy beeg ak leneen ak ñoom kooku di Lionel Messi trophée ballon d'or bi ànd ngeen ci ou pas waaye dama leen indil sax ñami toogal ak ña nekk ci wetam. Lautaro Martinez mooy ne ca geneen wet ga ak beneen coéquipier boobee di Alvarez mi nekk foofee ca Manchester City di def lu dara jarul ñoom ñuy jëlandoo coupe du monde ñooy toog même si même euh, même lignée ñii nekk kii nekk gi ki nekk ci wet gi information boobu laa leen indil waaye yamaatuñ foofu Jude Bellingham moom la ñuy jox Golden Boy bi ngeen xamee ko noonu day jël trophée ak Copa bi mu ngi noone kon nag Bellingham ren jii daal ah ni mu ko tàmbalee nii bu continuer dina raafale trophée individuel yu bëri te Ballon d'Or bii di ñëw déwén menacé na gars yi puisque Lionel Messi gëw mu bokkaat ci rang yi Ballon d'Or bi kooku di Jude ah. donc man maanaam Lionel Messi gëmu bokkaat ci Lionel Messi saa yu ko génnee ci rang ballon d'or yeeg yooyu saa ko génnee ci carrière football bu ñëwaatee mel ni moom moom leneen la quoi li ma wax nii déli la sax fan Messi ak amateur de foot maa leen ciy jéggalu maa koy tuub nag Lionel Messi saa ko dàqee ci rek moom buy ñëwaat dalay bett mu ngi noonee gars yi en tout cas mbir mi yéeme na mu ngi noonu daal jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo ba ci kanam ak ballon d'or bi cérémonie bi ñu yaatal lépp jaajëf Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko t'es positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan na oh, wallaay ndeysaan saa yi gerte la quoi ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci wax mais Bama daal lan nga wax eh, wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kese do continue comme ça inshallah après daal la nga koy jox

Thank you.

takbir. Allahu Akbar. Yamanin. dañ leen yàlla def ay Sinoa. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. si yaa tuur macha allah. dañ leen yàlla def ay Sinoa. def leen ay Mustafa